refuser quand il veut. Il peut dire bon avec le vote de l'Assemblée l'ordre public avec le vote de euh, l'Assemblée je me dis même peut-être qu'il aurait refusé hein qu'il aurait dit euh, avec le vote de l'Assemblée euh, ils vont voter le mercredi donc vous vous voulez créer du désordre oui, moi je pas vous autoriser à faire oui. cette manifestation là mais bu ñu leen ko bañalee it mm-hmm. il pourrait se retrouver dans une grande salle mm-hmm. faire un point de presse dire nous on a voulu mm-hmm. ñu def ay ñu def manifestation wane ñun. Mhm. sunuy ñoñ ñi nga xamante ni boom nañ leen ci manifestation yi xamuñ kan moo leen boom ñun bëgg ñu bëgguñu ndàmpaay dañu bëgg ñu leen wax ñu avant tout kan moo ko def. Mhm. su nekkee nanguwuñu manifestation boobu am. mais ils n'ont qu'à faire un point de presse ils vont dire que nous on avait convoqué manifestation ce mercredi ils ont refusé mais on va faire un point de presse dans tous les cas day gën a euh, maanaam il faut pas le faire quand il est chaud quoi. Mhm. mais malheureusement ils sont tous dans le droit c'est eux qui voient aussi la meilleure stratégie ñun ñëpp dañuy wax suñu xalaat rek mais collectif, voilà, du ou bien j'étais leur conseiller je leur aurais dit euh, toute façon de ne pas le faire le samedi mm. parce que y a trop de jours après mmh. pas yi nga xamante ni vote bi te vote bi vote bi c'est gens ils vont tout faire les députés que vous voyez là mmh. a les députés béni oui oui hein ils vont faire passer coowu date bi. non Cheikh kañ position am. Hmm. c'est juste quoi. comprendre que mais Sénégal amul justice solstice moo fi am. on a ah, Sénégal euh, non moo fi am parce que tey jii xam nga dëkk boo xamante ni euh, dëkk yi nga xamante ni vraiment séparation de pouvoir ñoo fa am hmm. kenn du fa sax xalaat lii en quelque sorte non. tu waa euh, man pratiquement j'ai un film bu may joxe référence muy Pablo Escobar xaw ma ndax seetaan ngeen ko wala déet quoi c'était un, un barreau de drogue au niveau de Colombie mm. tu vois hmm, demoon na ak sonal état bi ba état bi pour mu téye ko daf ko proposer tabaxal ko prison boppam mu proposer état bi mu tabax prison boppam quoi nga xamante ne garde état bi dañuy nekk à huit cent mètres ci kii moom mooy am ay garde boppam la diw lépp mais dem na ba ci biir prison ba mu fay def ay meurtre xam nga un conseiller du président daal di am benn meurtre bu fa am mu dem di def enquête daal di risque moom dugg ci biir prison bi Pablo Escobar jàpp ko pri jàpp ko otage gars yi def descente Pablo Escobar rek ñu rey ñu ñu rey ñu ñu war a rey libéré parce que c'était un conseiller du président mais ba bañ bañ ko li bañ ko libéré ba pare mais procureur de la république da ko topp mu ne ko mais je l'ai fait au nom du président mu ne ko je ne suis pas le procureur du président je suis le procureur de la république. c'est ça moo ñu manqué ñun. <laughs> <laughs> le procureur la république. tu vois donc la séparation. avoir la vérité mais ma jox leen benn. avoir mais ma jox leen benn exemple. Batalo Joola. Hmm. ñaata moor la amoon. plus de 1500 morts. est-ce que justice am na ci. mais moo tax ba léegi fàtte wuñ ko. tu vois donc dafa garaaw Sénégal dafa yàgg. tant qu'il y a pas la vérité. est-ce que yaa ngi dégg waa ji tu vois maître Babacar Seye ki ñu ko doon wax sànq. Mhm. amnistie boobu lan moo tax jàllul ba léegi. parce que amul justice. est-ce que comprendre que mais c'est parce que nos dirigeants politiques. bakkanu sénégalais moo leen moo leen lañ lañ tegul fenn. parce que en une simple manifestation boo xam boo ko autorisé woon encadré ah, ko dara du am. nga dem di def nga koy interdire ba muy am répression ba ay nit di ci dee il faut que ñuy fal politiciens yoo xamante ni am na ñu fu ñu teg bakkenu Sénégalais yi problème bi mooy respect la sunu politiciens yi amul ci sunu bakkan tu yàgg na fi moom. tu et puis am na di nga l'état de droit yow mi jiite da ko war a respecté bi nga koy respecté moo tax ngay éduquer say peuple parce que le politicien c'est un éducateur. il est censé. c'est le premier éducateur. parce que nit bu juddoo ba ba muy faatu état dafa war a nekk au courant. parce que état mooy bàyyi ñëpp. mooy yaayu ñëpp. yow même sa doom bi nga jur. dañ ci dañ ci am limite. Ah. bien sûr. su doon su dul woon loolu jigéen bu ëmb doom bu wasinee bu ko neexul wala ni mu ëmbee neexu ko mu yàqu ko wala mu rey xale bi mm-hmm. lan moo tax jigéen euh, couple bu ñu amee doom doom neexu leen bu ñu ko reyee ñu jàppale ne leen ngeen rey. te yéen a ko jur. te yéen ko jur ko moomu leen ko. dafa jaar ci yéen mais moomu leen ko. donc état moo ko moom. état mooy responsable bi. Mm-hmm. Macron tey jii euh, manifestation yi amoon France la booy naar bi ba ñu ko reyee la seen kii bi la ba mu amee xëyee am émeute. Mm-hmm. te kooku ñëpp gis nañ policier bi ni niñ ko reyee tu mais bu ñu xëyee suba dëkk bi am émeute mais Macron dafa jonkan di naan service de l'ordre yi fexe leen ba bu leen ma reyal kenn ñu bàyyi booyi booyi yàq def lu leen neex parce que dañu xam ni matériel matériel la mën nañ ko liggéeyaat mais bakkan mënuñu ko indiwaat. mais foofu justice moo fa am. on a un ancien président là-bas. comprendre Sarkozy. waaye yoon mu ngi koy topp. est-ce yaa ngi dégg wax ji. léegi nag fi mu toll nii Sénégal dafa toll dafa dafa nekk Sénégal dafa toll foo xamante ni lépp la ñu war a defaraat. lépp la ñu war a defaraat corruption dafa dem dans tous les niveaux. dafa dem dans tous les niveaux. exécutif judiciaire parlementaire. nga ñëw ci biir dëkk bi tamit fi la affaire yi fële ñaay. comprendre nga. bon lenn rek lañ mën a def instance yu parce que tamit yow bien boo ko mën nga kaas say droit bien boo mën nga kaasal jaami say mais nag c'est bien boo ko nga xam réalité psychologique waa dëkk bi fi mu toll nii man sëkk bu ma doon conseillé tey ji les familles bon les familles moom man je dis ka bu président reconnaitre woon ñu recenser ñi dee ñëpp dédommager leen def leen ndàmpaay le prix du sang c'est déjà quelque chose c'est la vérité dans tout ça ñoom bu ñu xam dëgg ku rey seen doom xam nga vérité boobu véri xam nga vérité et réconciliation moom la Macky Sall bëgg a woote dama ne la du moom moo koy du moom personnellement moo ko war a def moom moo ko war a def d'accord donc li ngay wax c'est pour giifal leen par rapport à la loi qui devra ak dëkk bi état état état ah, état l'état de droit du Sénégal fu mu toll ak est-ce que dinañ ko def et hmm? ne bu fekkee ni Macky Sall dina jël dina assumer ñu reconnaître victime yi comprendre nga ñi nga xamante ni ñoo ci blessé ñu ñu ñu ñu jël leen en charge est-ce que comprendre nga ñi nga xamante ni ñoo ci dee ñu ñoo ci faatu ñu ñaanal leen yàlla ba pare daal di leen di dédommager tu au moins ça bu fekkee ni Sénégal def na ko ah giifal leen tuuti mais je ne vois pas hmm. ce président wala cet état la mu def loolu mu wax justice. mu topp justice mu topp comme justice bi ni ñu koy réclamer. mu respecte parce que yow xam nga. mais loolu antécédent dangereux la. non xaaral rek ma wax la je ah, yow Macky Sall voté woo fi sans carte d' et dafa tere ngeen bañ ko fal. loolu rek du signal. gars <laughs> mooy nit ki da nit ki da ngay xam psychologie am rapport am avec les lois et les hmm? fi woon ni bu ñëwee bu defee buñ buñ ko falee. Euh, du def sept ans cinq ans lay def. da ko def. ah. mais man dama jàpp ne président Macky Sall bu ñu ko mayee. bu ñu bàyyee. day jàll gaa mais bu ñu ko bàyyee mu jàll aussi facilement cette euh, cette cette loi là au niveau de l'Assemblée. donc c'est un précédent dangereux. parce que lu tax parce que suba. assemblée suba man mën naa doon président de la République Sénégal. Mm-hmm. peut-être pendant cinq ans. ma def lu ma neex. sans arrière-pensée. mais qui te dit que ni mais mais qui te qui te ni suba élection yi bu ko jàllee du ñu changer constitution bi au lieu que ñu def régime présidentiel ñu def régime parlementaire. waaw même même bu ñu ko defee. au moins beneen euh, président ñëwee. waaw ñu dindi président ñu dindi ñu dindi nga ne président symbole rek lay nekk mais dootul gouverner. Mm. tu vois waaw loolu même suñ ko defee. mais cette amnistie là. pour éviter ça. jàll na la fi mu toll nii c'est pas facile de nga fi mu toll nii. gis nga fi mu toll nii dis nga jégalante. Mm. jéggolante man xam nga man question lay posé ban coup la Macky Sall dencaat boo xamante ni xamuñu ko ci amnistie bi ak rapport bi waaw mooy loolu mooy inquiétude suba bu fekkee ne xam nga fi mu toll ñi ngi wax amnistie mais après ñi ngi dem ci phase boo moytuwul dañuy rebattraat carte yi carte yi processus électoral bi processus électoral bi ça nous permet ñu jàll ci sujet boobu d'ailleurs est-ce que yaa ngi dégg wax ji léegi euh, xaw ma ndax dañuy permettre ñi ñi jot a jàll continuer ñu dolli ci ñi jàllul woon xaw ma naka lañ koy gérer. conseil constitutionnel conseil tey la ko président saisir. Ouais. normalement c'est ce qui a été annoncé parce que moom jot na rapport. Euh, proposition dialogue bi démb. Euh, voilà ñi doon waxtaan jam ñaajo li ñu tënk ba jox ko ko. Ah. dina ko booleeg benn lettre jébbal. yaa ngi dégg wax ji léegi nag instance yu ñu toll nii man sama sama sama. réflexion mais am na kàddoom yu euh, presse bi rapporté tey mu ne moom euh, nekkatul sax à l'aise pour jàpp date. kan Macky waaw. xam nga Macky Macky Macky Macky Macky xam nga boo bu bu buy dawal oto buy dawal oto buy nga nekk ci ginnaawam di dawal oto. dëgg la non xam nga rawatina buy dawal oto nga nekk ci ginnaawam di dawal oto. jëlal distance réglementaire bi quoi parce que mën na signaler gauche jàdd droite. multiplier distance mu jékki-jékki rek taxaw. waaw mu <laughs> que ñuy jël suñu précaution quoi comprendre nga. Ah, jékki-jékki taxaw moom da koy def parce que noonu la def kii processus électoral bi di ko freiné boo xamante ni yow comprendre nga nga daan waa kii nii naka la ko nit mën a defee. en pleine autoroute en pleine autoroute vitesse nga xamante ni foofu tu vois. mu waroo fa daw moins de cent vingt wala cent cent tu vois. Euh, c'est extra il faut que ngeen il faut que ngeen étudier psychologie président bi ah Sénégal oui hmm. oui mais. yow jàngatoo ko. ah jàngatoo ko. man man moom rek laay jàng. Hmm. Macky Sall. est-ce que yow comprendre nga Macky Sall. Macky Sall ah. président Macky Sall. le man Macky Sall bañ ko falee laa ne accident la. Hmm. c'est un accident. ça tout le monde le sait moom loolu ko wax boobu dara xewu ko. lu taxoon nga wax ko d'identité de defal nañu promesse daal di ab Ablaye Wade daal ne dëkk du ay tabax ay infrastructure moo koy développer il faut l'état de droit et une gouvernance sobre et vertueuse que bu ñëwee moom soxlawul deux mandats benn mandat la soxla te soxlawul sept ans cinq ans la soxla mais Macky boobu ñuy promettre loolu xamoon na ni loolu conseil constitutionnel constitution sénégalais mayu ko ko lan moo tax mu ñu koy dig yow yaay ñuy dig yow yaay ñuy mi ngi mel ni rek comme jigéen góor ñëw di la labat wala di la doxaan wala dox ànd ni ko olof di waxee dig la loo xamante ni leer na ko ni amu ko moom li mu bëgg rek mooy nañ fa sëy bi après bu ñu fasee sëy bi ba pare après mu négocie tëgg wëndal <laughs> <laughs> comprendre mais loolu dox sa dox suñu xel la te maanaam on pose des questions sur sa sincérité bu fekkoon ni moom loolu mu doon wax euh, kii na ci moom sincéroon na ci moom mais bu ko conseil constitutionnel mayu mu démissionné. il pouvait le faire. comme instant yi ñu toll xam nga ñu bëri ñu ngi naan sax pour sauver Sénégal ci kii bu nekk il serait mieux que Macky démissionné bañ a dem ba le 2 avril. ay ñooñam ñu ne am na ñu ko ciy pousse. mais mais mais loolu c'est plus pour que ñu reprendre le processus. de. oui l' assemblée nationale qui vient. pour trois mois de toute façon ñoom ñoom ñoom Benno Bokk Yaakaar ak PDS. comprendre nga <laughs> ñoom seen ñoom objectif ak seen bëgg-bëgg mooy ñu rebattre carte gi. ñoom leer na ci bopp Sénégalais yépp ko. d' ailleurs keroog am na kenn ku wax ne Amadou Ba nekkatul ñoom seen candidat. non Amadou Ba moom affaire bi moom bu koy rebattre moom tëgg na ko. ah moom moom yóbboo mu fori wala mu def wala mu def candidat autonome indépendant. Hmm. loolu moom moo fi nekk te te te moom sax est-ce que duñ ko jénneel dossier wu nu mu tuddati. Euh, conseil constitutionnel euh, kii boobu xam nga loolu ñu ngi koy fàtte kenn waxatu ko. loolu laa la ne buñ ko ci bàyyee. waaw ah. te entre temps on a fait du président de l'OFNAC un super procureur. Euh,